moom la ñu war a jox mairie yi ak département yi ci atum 2022 bi ñu ko xayma ëpp na ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay milliards yéen a kaay gi di 24 heures xëy nag di ñu ne ñoo nekk université Gaston Berger xam ne ngénte tubaab la ñuy def ngénte tubaab ngénte tubaab mooy nag lekk ba pare doo li nga xam ne moo leen méttee dafa am ay liggéey yoo ne moom la ñu fa doon def ci université boobu a kaay gi ministre bi ñu dénk wàllum njàng ma digg doomu mi daan sopp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 Doudou Ndaw Doudou Ndaw ñu gën koo xam nag ci Bouba série invité la Bouba nag nee na Kaolack lu jiitu yaroo fi nga xam ne mooy Saint-Louis jàng na nag am na bac am na sax licence communication ak marketing na Bouba nag daan nay wax ni nga xam ne moom la duggee nag ci série bii nga xam ne mooy Pod et Marichou daan nay wax tamit série bi nga xam ne mooy invité la ni mu ci duggee wax na tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllum carrière am ak nag li nga xam ne mooy ay procès ma ma ngi ci journal bi yéen gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu combat bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar ba léegi combat